xamle laataa ñuy dalal euh, Modou Mboup borom bis bi tey euh, tey nag euh, defe naa ku dem théâtre national Daniel Sorano dina mel ni nguraan ndax ki ñu fay ki ñu fay waxtaane di Cheikh de Thialaw jàkkaarloo Modou Mboup ak Oustaz Pape léegi laataa ñuy jeexal bu ñu jeexalee nag bay leen ak ki nga xam ne mooy daa Fat Bintou Diop mm-hmm. ci jotaayam bu mag boobu boobule xam ak xamle docteur Massamba Gueye dañuy jàll ci baat yi baat yi nga xamante ni moom la ñuy euh, euh, wan sunu euh, téléspectateurs yi laata léebu bis bi ñu njëkkee ak baat bu njëkk bi. bii lan la. woy woy mooy lan. Mhm. déedéet. soow mu woy. déedéet. moo tax ma indi ko yàllaa fi indi buuba. mooy li buuba di bind di ko defloo jigéen ñi ak góor ñi. woy la ñuy wax. woy santé kenn du woy. danañ wax woy waaye dinañ xam lan la. Ah. waaye boo jëlee ay baat neexal ko. ngir mu laal xolu nit woy nga dañ ko digal ne woykat la woykatu yonent bi la sallallahu alayhi wa la ñuy wax woy waaye Sénégal gépp duñ wax woy Sénégal gépp leneen la ñuy wax ban baata ci topp bi ci topp gi ci topp mooy way mooy way waaw way nag boo ko déggee mooy euh, meew moo jël bàyyi ko ba fanaan cafkaam tuxu jikkoom tuxu <coughs> jëmmam tuxu mu nekk soow ñu ne soow mi way na mooy nit koo xam ne génn na ci xale kàllafe bay def fi mag ñu ne nii nit ko waye ngi nii nit ko way mooy ku mel ne oustaz Pape Anne mm-hmm. boo ko fekkee mu toog ci kàttanu yàlla mm-hmm. da koy jox cër ba boo koy nuyu ñaari loxo nga koy jox mm-hmm. waaye ku waye di loo ko jox dana ko am waaye du xam nu mu koy téye te wolof nee na am ko te xamoo ko bañ koo ama ko gën kon way mooy lii way ak woy du benn woy mooy li ngoone Ndour di defloo Aïda Samb mooy li Thione Seck di def mooy li Omar Pène def day woy waaye nag ku ci woyut ci ñoom ku ci woyut doo mën a way <laughs> da nga yuuxut da nga ngaax a ñepp waaye way mooy lii kon way bii dañ ne soow lañ ko xaaree waaye ci nit lañ ko gën a bëggee ak nit day way bala moo def dara def loo xam ne kenn du ko jéppi waaye xam nga mag mu dem ba am juróom fukki at sol ki la toog sa digg kër say cër di feeñ kooku wayut borom kër nga waaye kàll fewu kàll fewu dëgg la de ay ci bismillah ñu jàll ci baat bi ci topp maaw wéy wéy wéy waaw ngay wéy ñu ne ñu ne ana buuba ñu ne gis moom da taxawoon na fi léegi ñu ne ana ñu ne wéy na. te tànk yi daa gaaw. ñu ah, ban façon <laughs> ñu ne wéy wéy wéy dem na. wen dem na li wéy. maanaam wéy maanaam maanaam maanaam wéy na dem sa bureau xam nga ah, bureau rek waaw ñu na rek fu mu dem wéy na ah, waaw lu fekk naa des rek ci àdduna bi non non non bokkut ak kii génn kii kii génn àdduna maanaam tey jii munoo ne munoo ne Cheikh Al Maktoum wéy na waaw mënoo ne wéy na. saay na. mën nga ne non moom moom saayut ndax li saay dafa jeex. Mm-hmm. guddee na. moom guddeewut. ndax ki guddee day xëy te moom du jeex. Ah. ndax moom moom kenn du ko natt ci diir. d'accord ki ñuy natt ci biir mooy xëy ak a gont. Mm-hmm. waaye moom almaxtuum booy wax mën nga ne wuy ji na boroomam. man mm-hmm. nga ne noppalu ji na. ndax da ngay rafet njort ci ne ma nga àjjana. man nga ne wàcc na liggéey ndax dafa newoon ci waar. man nga ne it ne dëddu na. waaye nag bu fekkente ne dañ ne ana Pape Cheikh nga ne Pape Cheikh wéy na demin waa gaaw. Mm-hmm. waaw wéy na. moo tax ñu ne bëy wéyee na mbuus. Ah, xam nga bëy day dox yor ñeenti tànkam. Mm-hmm. buñ ko reyee jël mbuus gi takk ko dañ ci def ndox gis nga naari ni ñuy def. Mm-hmm. ñu ne kon bëy dundatut bëy wéyee na mbuus. foofu la baat bu jógee. macha dégg nga léegi kon way am na. way am na. way am na. wooy am na ci prononciation. wooy am na way. ak oui ay ca bismillah d'accord ñu jàll ci léebu bis bi lu mu la jox looy ñaan nit mu woy mu woy ko mu woy ko bàyyi ko looy ñaan nit mu woy ko bàyyi ko li poroxaan lañ ma ko waxee bërki démb masha allah loolu mooy la ma toog di waxtaan ak kilifa buuba may sa montre bi mu ne montre bii mu ne bàyyi ko waaye na montre ba du la ko may may ma sa mbaxana nga ne mbaxana mii mu ne way na ko bàyyi ko du ma ko wax nga dëgg de mu ne looy ñaan nit mu woy ko bàyyi ko ajaratu batti mi ci lam bu dis bi lam bi lam ko may sama soxna sama sama lam bi may ma sa lam ne lam bi mu ne looy looy ñaan nit mu woy ko bàyyi ko da ngay am xel waaw booba doo may sa ordinateur bi ordinateur bii way na ordinateur bi du ko may non bu doon yow moom ma may la yow lu ma la ñaan nga may ma ko jot nga xottal ma mbubb yaay <laughs> sama rakk di teg ma rek macha allah waaw déggal ma nag déggal ma nag macha allah kon looy ñaan nit mu woy ko <laughs> eh. bàyyi ko mhm. Mariane damaa bëgg a damaa bëgg a ànd ak yow sa oto bi nga ne ah, sama oto bii amul oto dus <laughs> bu amee jëkkër am oto bi waaye bi bu ko bawut ak baaxam gi wallaay boo ma la oto waaye am oto incha allah teraangay àdduna yëpp nit a tax mu wàccee ko boo ci jombale sa bopp mu jombale te ñun ñoo ko moom waaw kon Pape loo wax ni nii looy ñaan nit. looy ñaan nit mu woy ko. Hmm. bàyyi ko may naa la weer wi yëpp nga ubbee ko say émission. jeex na moom laay waxtaanee sax léegi nii bu ma demee ci rajo bi. looy ñaan nit looy ñaan nit mu woy ko. Hmm. bàyyi ko maa ngi gërëm a Isaaxa Mbacke ndax ca biir këram laa ko déggee Porokhane. sëñ Isaaxa Mbacke. waaw di gërëm waaye docteur. Hmm. tamit nit ñi dañoo mën dara. nit ñi dañuy fekk loo fonk. ñaan wax fa dëgg yàlla. ñu ñaan la ñu ñëw ne la bi may ma ko kañ nga ma koy jox. nga ne ko xam nga rek nga ne waaw ah, dinaa la ko may vraiment ñu toppale ci waaw yow sa saa yi affaire bi lay xaar affaire bi lay xaar fekk yow xam nga am na nu mu lay waxee. waaw may gi du obligatoire yow buuba li nga wax day dëgg waaye daa am lu neex dafa am lu neex wolof nee na kii ñaan day kaf. Mhm. kii maye mooy dëggal. waaw ah, waaw waaw Aïcha waaw Maawo nee na Maawo nee na ma jóg xajal oustaz Pape An mu jàkkaarloo ak euh, Modou Mbow. maa ngi war a dem ci rajo bi de itam 10 heures et demie. man mii dama am man mii <laughs> dama am conférence dama am dama fay dem dama leen ko bañoon wax ci début. waaw waaye dama amub sët. waaw bu semaine bii Mouhamed Kassé. ci moom laa bëggoon ñëw sax doomi màgget Ndiaye. waaw madame Kassé. waaw sama sama sa di sa sëy sama jarbaat ba pare def ma bàyyi. waaw ñëw sëy si ci kër gi man nag am naa fulla ju toll ne. Mhm. na law ba ba defoon laa def. Mhm. ba goro ba ñëwee yekkal ko ganaar ci guddi gi. Mhm. daf ne kii a baax. woo goro yëpp ne ki a fi gën. mu xëy suba jàgg ca yàlla mu ne ko yaa fi yées ñu ne ko yaa ko taggoon bi xas ko tey mu ne moo gaaw ma gaaw ah, kese waaye Maguette Ndiaye daa gaaw ma gaaw ah, kese ndax sama jarbaat ko takk sama jarbaat man lañ ko bàyyi waaye sa jarbaat bi da ñuy tere dàkkantali moom lu tax ñu koy wooyee petit ba tey petit matar ndax petit matar kase lañ ko tuddee maxtar kase waaye petit matar taalibu cheikh bi doom bi ne ko bu juddoo tuddee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu koy gërëm di ko sant mi ngi fii ci HLM Fass mm-hmm. tur wi wuy ji boromam. amiin amiin amiin yal na yal na yore ay waajuram. amiin amiin ay waajuram. amiin amiin waaw léegi nag loolu lay tëjee tey. Mm-hmm. Bouba Ndour bu guddee bul def jàkkaarloo parce que sa émission mat na sa journée mat na tey sa mat na dégg